daje jàmm la mooy daje boo xam ne day leeralal nit ñi ni ko imaam Babacar waxee léegi def lañu tournée nationale bu ñu doon def at mu jot wala ñaari at yu jot ci suñu kattan ak suñu mën-mën Covid wi taxoon lu mat ñetti at a ngi nii defuñu ko ñu ne ren nag foog ñu def ko bi ñu ko jàppee ci mois de juillet mënul woon nekk. ndax ñu ngi woon ci tuuti ci nawet bi mois de août nawet bi nekk fi tamit mois de septembre jot gi mayu ko Covid bi jógaat ñu ne ko nañ ko tegaat ba Covid bi gën a tane yàlla dogal euh, ñu def ko ci mois de février bi jàpp ko ci diggante le 7 ba le 18. Euh, ci diggante bi tamit yàlla dogal audience ñu am ko ak président de la république parce que ñun tamit ONG la ñu ginnaaw bu ñu nekkee association nationale ONG lañu kon am na ñu mën a wax ak état te état day wax ak ñun ñu di ñuy wax ak moom du audience yi rek dañuy bindal bindante di waxante ñoom it ñu ñuy tontu ci situation bu ne bii nag dafa tombé le 20 le 20 décembre ñuy jëm ci élection municipale yi ñu ne comme ni ñu ko daan defee depuis ñoom Maodo Sylla ba tey diggante évêques yi ak imam yi day am lu ñuy wax appel des évêques et des imams pour la paix yenn saa yi ñu defee ko fii yenn saa yi ñu defee ko cathédrale sax moo ëpp ndax ñoo ëpp salle ak disposition pour loolu bi ñu waxtaanee l'abbé yi ñu ne kon nañ ko def balaa Noël yi tableau baa ngi ne la ci ginnaaw nañ ko def balaa la au plus tard le 20 décembre ndax le 24 décembre day nekk Noël yi ñoom dootuñu am jot dañuy préparer seen i messe ak seen i homélie kon jot bi dootu leen ko may day nekk ginnaaw loolu te kon élection yi day dugg ñu ne daal loolu duñ ko renvoyé nañ ko def fu ñu koy defee ñu ne cathédrale ñu jubóog ñoom ci date. def ko ndax élection yi mu ngi waroon nekk ci mois de janvier bi président de la république recevoir leen ñoom ginnaaw bu ñu defee appel des évêques et des imams ndokkee leen ci seen nawel bi yéen ñëpp gis ngeen ko ndokkee leen aussi ci bonne année bi bi mu ñu waree recevoir ñun imam yi ñu ne élection yi dafay commencer mu nekkoon nag comme recevoir naa évêque yi ba pare dinaa leen recevoir en audience après ci première audience yi sax lay doon ndax bëgguma ko renvoyé waat mën nañu dem ba mu lab bi élection yi jeexee juste mu xamal la ñu ne dinañu recevoir ndax boobu ba tey ñu ngi sàkk dajeek moom ci suñu ay programme te boobu ba tey sotteegul programme yooyu nag topp na ci juróom-ñaari poñ juróom-ñett la woon sax benn bi nañ ko retiré dinaa leen ko expliquer après bi ci jëkkoon mooy ñu ne ko suñu siège bi ñuy defar président Senghor moo ñu ko mayoon en 1979 en 1981 bi Abdou Diouf ñëwee mu jox ñu suñu terrain bi mooy fële ci Massalikul Jinaan fi collège Saint-Pierre nekk ñu jox église bi benn parti jox imam yi benn parti pour ñu mën fa def seen siège ak orphelinat ak ña ca ndax xale yi mbedd yi dañu bari programme bi pare na ma nga fa woon bi ñu waxtaanee monsieur le président de la république ne ko kat suñu siège bi Alhaji Abdou Aziz Sy moo tegoon pose de première pierre bi baax en 1992 ba oowoon ci sax Jili Mbay borom teraanga la rahimullah yàlla na ko yàlla yërëm ñëw ne dinañu ci jàppale lu mu mun ba mu sotti yàlla dogalu ko 1992 boobu ki alaaji Abdou ak defee première pierre bi oo na ci ñu mu bëggoon oo ñëpp yàlla dogalu ko ñu nit association des imams bi ab président Abdou Diouf ñëwee ñaanoon nañu ko mu dimbaluñu ci mais mu ne ñun ci pays laïque la ñu nekk mënuñu tabaxal ñu nekk ci diine ci lenn lu mu mu doon lu nekk constitution bi mayewul loolu pays laïque mënul dem di tabax ay jàkk ki jumaa ki siège ki yi du mënu ko attanu ko budget état attanu ko mën nañu defal ay lekk ñu dem uti alal wala teraanga wala ku ñu ko mën a defal bitim réew bu fekkee ne amuñu ko ci biir réew mi ndax ñu ko doon jàmbat ñi ñu ci bëggoon dimbali ci yaakaar leen ci yàlla dogalu ko ndax appel boobu Alaaji Abdou Aziz si Dabakh moo ko defoon président Abdou Diouf defal ñu lettre ñu dem Bahreïn dem Xotr ma Qatar dem Arabie Saoudite dem Maroc te fu ñu fi dem rek bu ñu tasee buur bi rek danaa ñu bu ngeen di ñibbi rek ma ñëw defar ko li jaral la ma lu nekk mais yàlla dogalu ko bi nga xamee ne dellusi dellusiwaat na ñu mujjee dem Gabon mu defal ñu lettre ñu seeti président Bongo bi ñu waxee président Bongo mu a day ñëw defal Louga am lu mu ko war a defar bu ñëwee dina ñëwaale ci siège yu imam yi dimbaluñu ndax ñun imam yi amuñu fu ñu recevoir nit ñi amuñu siège suñu bureau la ñu am te yenn saa yi ñu am dinaa wax benn gan bu tolloog monseigneur Gantin bu mu ñëwee Dakar dañu mujjee loué ji hôtel Taraga pour ñu mun ko fa recevoir bi Pape bi ñëwee Dakar. moom it amuñu fuñ ko recevoir dañu mujjee dem Gorée Imam Dia moo ñu mën a dimbali ñu recevoir pape bi foofu doomam a ngi fi ñu mën a waxtaan ak moom ci suñuy programme jox ko ay cadeau ndax pape bi dafa jóge Rome ba Dakar félicité dialogue interreligieux bi am entre musulmans et chrétiens donc ñun amuñu woon fu ko recevoir mënuñu dem hôtel mënuñu dem fenn ñu ne comme imaamu ratib bu Gorée imam ratib la au même titre que imam ratib bu Dakar bu ko recevoir ci moom ci turu imam yi loolu dinañu dinañu neex trop noonu la ñu def it bi ñu dellusee Gabon dara sottiwul bi président Abdoulaye Wade ñëwee ñu ñu dem seeti ko comme ni ñu seetee Macky nii waxtaan ak moom mu dimmilu ci ne dañu jëm ci élection yi bu élection yi passé incha allah dina ci def lu mu mun pour mu pare mu jox ñu lu ñu commencé ba fi ñu em ñu mujjee depuis ñu commencé ko 1981 dañuy cotiser 1000 francs par imam par an pour mun a tabax loolu mënul nekk mais góorgóorlu nañu ci lu ñu mun parce que ñun ay retraités ñoo ci ëpp ñu mosul fayeku ñoo ci ëpp ñu amul bulletin de salaire ñoo ci ëpp ñu amul pension de retraite ñoo ci ëpp mais yàlla fi ne ñu ne kon dañuy cotiser imam bu nekk 10 mille francs ñu mën a cotiser at mu jot pour ñu mën a bu ñu amee dara def ci bu ñu amee dara def ci 1992 ba léegi def na 30 ans tabax nañu lu ñu mun ba fu mu em fa lañ ko emal ñu wax ci président Macky sal keroog bu ñuy defar jumaa ji mu doon ibbi ci géejawaay foofu tamit association des imams et oulémas ñu moom terrain bi bi président waree defar foofu mu tombeek association bi moom ko de géejawaay ñu daal di defar mu tabaxal leen juma waa Pikine mu defal leen juma ju tombeek jamono bu ànd ak jamono bu nekk ak jamono yéen ñëpp gis ngeen ko bañ koy inauguré nag ñu ne nañ ci profité waxaat ko président de la république ne ko kat suñu siège bi ñuy tabax ñu ngi cotiser mille francs par imam par an donc ñu continuer ñuy cotiser 1000 francs par an par imam bi nga xamee ne loolu am na weer bu jot wala at mu jot dinañ am quatre cent et quelques mille cinq cent yi quelques mille gën caa néew six cent mille ñu nekkoon nag lañu ci boole jàkk yi ak jumaa yi jàkk ju nekk di cotiser dix mille francs par an jumaa ju nekk di cotiser vingt mille francs par an ñu dajale xaalis bi di tabax siège bi defaat nañ ci ñetti yoon ba ñeenti yoon mais ba tey demul bi ñu waxee président Macky Sall ca loola ca keroog ba ñuy ibbi mosquée waay mën a jox leen ma document yi loolu man maa ko war a defar ndax maay le président de la république te maa ngi def ci foyer religieux yi kon nag war naa mun a jàppale imaam yi ci loolu sama devoir la te dinaa ko def mu def ñaari at ci diggante bi ñu rappelé ko waat ne ñu ngi jëm ci tourne nationale te war nañu yóbbu programme boobu wax leen fuñ ci toll yàlla def bi mu ñu mu ñu recevoir après les élections ñun la jëkk recevoir daal ne ko maa leen diggoon ne dama leen recevoir recevoir naa église bi yéen ci topp ñu wax ak moom ci programme bi ñu wax nii yëpp mu ne ah maa leen ko diggoon keroog bi ñu demee Géejawaay kon tey nañ ma ool architecte du palais bi mu ñëw ci audience bi léegi mu ñëw mun ne ko fu ñu toll ci siège imam yi mu ne ko moo ci topp ci budget yi ma yoroon doon defar Fatick lañ doon defar jumaa ji ibbi nga ko bërka démb kon nag imaam yi ñoo ci topp mu ne kon nag dégg ngeen ne yéen ci topp incha allah dinañ leen ko defaral ñu ne ah loolu xibaar bu neex ci ñun la wax ko fi ñu jaar yëpp ci 30 ans yi fi passé moom mu ñu nangul ñu loolu ñu gërëm ko santé ko deuxième point wu loolu nekk premier point bi deuxième point bi bi nekkoon ci affaire u xaadi yi nga xam ne dañ leen fal ci tribunal yi nga xam ne moo nekk les tribunaux de grande instance bu nekk am na benn xaadi titulaire ak benn xaadi suppléant yooy xam ne ñooy jàppale juge bi ci affaire u mariage yi religieux ak li nga xam ne mooy affaire u miraas yi ndax jullit yi dañu bugguñu ñu leen di miraas ci lislaam te jullit bu dee bu nekk ci am nañ koy miraase te code de la famille nangu na ko ñu ne kon kaadi yi ñu namoon ci tribunaux yi dañ leen di defal ay suppléant am na ci déjà mais du ñëpp matale kon tribunal bu bu manqué xaadi dañ fay nommé benn titulaire ak benn suppléant te décret bi président de la république moo koy signé ñu wax ko de loolu def nañ ko mais sotteegul mu oo ki yore loolu pour ñu sottal loolu ci deuxième point boobu tribunal départemental bu nekk ci Sénégal am benn xaadi titulaire ak benn xaadi suppléant yu jàppale juge yi ci affaire u miraas yi ak affaire u sëy yi mooy deuxième point yu audience bi ñu dem ci troisième point bi ñu ne ko monsieur le président lii boo ñu ko defalee te ñun ñuy dundee ñi ci ëpp ci yalwaan ak amuñu moyen siège bi war nañ ko entretenir war nañu fay ndox war nañu fay courant war nañu fay gardien war nañu fay personnel war nañu fay équipement yi fa war a nekk ak matériel bi nga xam ne dañuy renouveler tout le temps te loolu yalwaan mënu ko yore ak cotisation le président de la république ne li ngeen wax dëgg la kon dinaa leen defal benn subvention bu mun a attan loolu di leen ko dimbalee at mu jot ndax imaam yi kat jàmbar ngeen ci Sénégal yéenay jullee néew yi yéenay tuddal liir yi yéenay takk sëy yi yéenay def miraas yi yéenay denc néew yi yéen ñaanal leen di leen jàngali kaamil ak yu ci nekk yëpp vraiment ñu jar a jàppal ngeen dinaa leen di am subvention boobu ngeen mun a téye seen siège di ci def entretien bi ak di fay li ci war yëpp nangu naa leen ko mooy ñetteelu point bi ñeenteelu point bi ñu ne ko nag président imaam yi tamit bari leew ñu wax dëgg yàlla bi fi Senghor nekkee daan nañu dimbali lu mat cent imam kenn ku jox ku nekk jox la sept mille francs bu Tabaski jotee bi Abdou Diouf ñëwee mu def ko quinze mille francs ñu def Tabaski ak Korité mu jéggi naa gi mu def ko vingt cinq mille bi Ablaye Wade ñëwee pour ndimbalu tabaski ak korité ci imaam yi te dañu bari tubarkalla macha allah mu ne dinaa ci def lu ma mën ab laay wax Wade tamit yokk nombre bi yokk ci lu mët sept cent personnes sept cent imams surtout tout le Sénégal pour dimbali leen parce que am na ñoo xam ne dañ ñëwoon duñ jël xaalis bi ndax xaalisu politique la loolu foog ñu wax ko ñii nangu nag bu jotee ñi ci dëkk yi ñu dem ci gouverneurs yi ñu jox leen ko ndimbali ñeneen ñi ñëw ci siège imam yi wala président ñu ko doon joxe mu ginnaaw wi ñu ne dafa bari dañu ko andi ci siège imam wala ñu luyee saal wala ñu leen ko defal banque wala daal orange money ba fii mu mujjee ñu ne ko nag imam yu bari amuñu mu ne ñaata ilimaam ngeen ñu ne ko vingt deux mille et quelque ci Sénégal gi yëpp ci ay mosquée moo fi am mu ne loolu duma ko mën a gum léegi mais dinaa leen defal lenn may naa leen ngeen jël lu mat 1500 imam sur l' ensemble du territoire boole koog li ngeen amoon jël naa ko en charge kon président jërëjëf ci loolu mu yokkal ñu lim boobu bi mu ñu yokkalee lim boobu ndax daf ñuy dimbali te bëski bu nekk cinquante mille francs ci ci ñi bëgg nga mën a yokk ci dara xam ngeen xaar dootu jar fukki junni mu dimbalee la fukki junni booleeg li nga am nga jënd sa xar tabaski sa tabaski quand le gros maigrit la maigre meurt kon ñi amul woon bu ñu amee day gën a baax ci ñëpp ñu ne kon nañu seeti imam yi comme dañuy def tournée national ñu dem waxtaan ak ñoom tamit wax leen ko ñu ne daal loolu duñu ko téléphoné di wax secrétaire général bi rek nañu dem nemmeeku ji suñu imam yóbbu leen xibaar yii yëpp ndax dañ ci daan cotiser dañu war a nommer ay xaari ñu demee ñoom ñu seet xaadi yi ñu nommer ci tribunal bi nga xam ne fu nekk ñaari xaari fay am titulaire ak suppléant ñu dem yóbbu leen xibaar boobu. léegi ñu war a revaloriser statut imam yi tamit ñu ne imam ratib bi dañuy jënd xar yóbbu ko ci jumaa ja xar bi war na am nu mu bindoo la mu doon am daal bëgg nañu mu yokk ko mu ne li ñu te imam raati bu Dakar rek fi am yeneen amu ko ah mun ne d'accord naa loolu quatorze régions yëpp ngeen dimbali imam bu nekk cent mille francs mu booleeg li mu am mu nangu ñu loolu di jox imam raati bu région bu nekk tamit lañ la doon jox ñu tegale ci cent mille francs nga mun a jënd sa xar bu tabaski nga yóbbu ko ci jumaa je ak lii la nit ñi di dimbalee ak li nga am def sa jox su sunna ñu waxtaan ci ba juboo ci loolu nekk lu neex ci suñu xalit ndax imaam yu bari jafe-jafe lañ ci doon traversé ñu wax ci suñu biir na ñun nañu renouveler suñu carte yi ren sax buñ ko jaay imaam yi ndax Covid bi daf fi jaar te association yaa ngi souffrir nañ leen xamal ne bu ñu jaayee carte yi leen di jox ak li leen fond de caisse bi nga xam ne association des imams desoon na fii ñu jël ko dimbalee leen ko ñu waxtaan ci ak alaaji Moustapha Gueye mu ne ñu nañu jox imam bu nekk buñ ko seetee ziyaare ko ndax buñ fa demee ñu toggal añ dinañu defal njogonal dinañu jox lu neex te dinañu defal ataaya kon ñu ne ñu yëkkati ñaar fukki junni jox ko imam ba ñu fa fekk dimbalee ko ko ci suñu ganale bi mu ñu ganale ndax foofu dem rek mu def lu mu mënul te booy dem wàcc fa dara tamit dina ko dimbali ñu ne leen suñu membres yi fi nekk carte yi ngeen di jaay ñii cent ñii deux cent ñii cinq cent lu ngeen jaay ci carte rek jël leen ko ren ngeen def ko seen kees ngeen dimbali ko ko ndax Covid bi tax na kenn amul dara wala ñëpp dañu néewle ndax liggéey amatul jafe-jafe am na soolootul ñuy jaay carte di laaj xaalis ndax li fi nekk yéen a ko jaay yéen ci yéen a ko yéen a ko fi versé woon ñu restituer leen beneen bi ci topp mu ñaan ñu julliti nekk benn julliti nekk benn moo ñuy defandoo di waxandoo di jëfandoo surtout lu jëm ci affaire u Tabaski koor Korité Tamxarit ndax feet yi du ñu ko mën a di maye toujours bu julliti nekkee benn di ko defandoo rek day yombal réew mi raxas xol yi ñëpp am ci mbégte te loolu la ñu lislaam sant ñu waxtaan ak moom ci affaire weer bi mu ne mais weer bi yéen seen responsabilité la yéenay imaam yi yéenay jiite jàkk yeeg jumaa di jiite iti ku nekk day dem si imaam ne ko fu weer bi toll. kon yéen a war a régler problème bi jox naa leen affaire weer bi ngeen koy regle de leen séntu weer bi te di joxe xibaar yi nu mu gën a gaawee ñëpp am xibaar bi ndax feeti nekk benn yéex bi dafay tardel réew mi day tardel nit ñi. ku nekk xame ne suba day oor bu weer bi feeñee ngeen teel ko xibaar ñu ne ko sax ñun boole nañ ci ba joole ci journaliste mu ne loolu day gën a baax ndax jamono xibaar la ñu nekk xibaar dafa am importance te ñëpp war ko yëgandoo toll nañu foo xam ne loo wax fii tey léegi ki nekk Kédougou wala ki nekk Bakel yëg ko kon affaire weer bi daal yéen imaam yi réglé leen problème boobu ngeen doxal ko seen responsabilité la du responsabilité kenn affaire u weer affaire u iliman la te iliman yi bokk nañu fu ne xeet yëpp ngi ci ñëpp ci nekk te Sénégal ñoo ko bokk ñu nangul ko loolu tamit ci dénkaane boobu te dinañ ñu ko doon doxal ba tey ñoo ciy continuer di ko doxal loolu moo ci nekk ndax du ñu euh, bi ko waxee tamit ñu ne ko suñu tournée nationale bi Euh, jamono dafa koor gaa ngi ñëw buñ ko deful léegi dootuñu ko mën a def te am nañu invitation bu nekk Gambie foog ñu dem fa it ci président Barrow bi ñu fal bu yàggul invité nañu foofu imaam yi invité ñu mu ne ah ça fait l'occasion comme da di dem tournée national seen oto yi mënu ko def dinaa leen abal oto yi ko mën a def mais nag zone Casamance bi dafa am ay jafe-jafe ndax dañ fa jàpp lu mat neuf soldats ou quelque chose comme ça ñu nga fa ñu arrêté rébellion dafa am foofu am na coow di ci gën daal ma abal leen oto yu baax dimbalee leen ko ngeen mën a dem bu ngeen dellu see dellu si ma oto yi d'ailleurs jamaa yi joxe chauffeur yu leen di yóbbu pour assurer seen sécurité ndax ñoo xam oto yi yéen mun leen dawal ay màgget ngeen mu dimbalee ñu loolu jox ñu oto ñaari oto oto yi dimbali ñu yóbbu ñu fu ñu dem tamit imaam yi li ñu leen wax nii moom lañ leen wax feuille de route moom la ñuy def ci tournée bi. am na benn point buñ ko doon bëgg a ñaan muy fay weer imaam yi mu ne si ma fayee imaam yi foog ma fay église ñu ne ko ah kon ñun dañuy retirer point boobu mu ne ma gis ngeen enseignant yi ngi di ma laaj xaalis. te mënul seen problème rek leegul kon ma jël leneen di ci teg yéen yàlla moo leen di fay jàppaleen ci li ngeen jàppoo nekk ci li ngeen nekk lu luñ ci mën nag ci dimbali leen dinañ ko def ñu xam ne ko ne Sénégal vingt-deux mille cent quatre-vingt-quatorze morse moo ci nekk boo buggee fay ñooñu ñëpp jàkk ju nekk am na ñaari iliman ba ñett am na six cent cinquante cinq grandes mosquées am na vingt-deux grandes famille Euh, grande famille religieuse am na huit cent quarante une églises am na sept cathédrales loolu charge bu rëy la bu laaj étude spéciale ñu mun ci wax ñu retire question boobu ne ah boo koy laaj dara de fekk mu mën ko te mun ko mën ko def bu ko munul mën ko mënu ko def da nga koy teg lu mu mën mënu te bu boobaa da ngay andi jafe-jafe kon question boobu nañ ko teg fële tey juróom ñaari poñ yi nga ñu jox bind ko jël ci ay décision ñu di dinañ ko exécuter ni mu waree loolu moo indi ñu dem tournée nationale bi wër suñu ilimaan yi parce que El Hadj Moussa gi dafa ne bu ñu téléphoné benn secrétaire général la ñu dem ba ca ñoom wax ak ñoom ca loola. ni ñu ko defee fii xamale leen ko fii noonu lañ ko xamale ñëpp amul leneen lu ci nekk wala luñ ci wax loolu lu ci dox su amee lu ma ci fàtte wala lu ma ci waroon préciser. suma naataango bi imam Babacar Ndiaye di Mbaye jaay dina ko mottali